bâtiment bi njabootuk sëriñ Massamba Mbàkke doon liggéey ci résidence Xaadim Rasoul bi nekkee ci Touba Daarul naan mu nekk batiment bu mag boo xam ne ay suite yu yaatu moom moo ci nekk suite bu ci nekk am salon néeg ak salle de ak mboolem jumtukaay yi nga xam ne moom la war a àndal muy liggéey boo xam ne ndigal laa ngi bàyyeeko woon ci Cheikh Sidil Mokhtar Mbàkke yàlla na yàlla yokk ay leeram taas ñu ci barkeem ci atum 2016 liggéey bi ñu liggéey ko ci ñeenti at lépp mat ñu jébbal ko tey ji alxamis dëppook fukki fan ak juróom-ñaar ci septembre atum 2020 di ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci muharram atum 1442 ginnaaw gàddaayu yonent bi salallaahu alayhi wa sallam xalif général des mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru mu ñëw ci batiment bi ànd ak ay kilifa ngir nemmeeku liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la njabootug sëriñ Masamba gi liggéey ci kër gi bi cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke Basiiru ak see sëriñ Mamor Mbàkke moom sëriñ Masamba mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ Moustapha Masamba mi xalifa waa kër sëriñ Masamba yépp moo ko dalal ziyaar ko ànd ak mboolem njabootug sëriñ Masamba gi nga xam ne teewoon nañ fa bokk na ci sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Mahmadan mi nga xam ne moo yor kàddug njabootug sëriñ Masamba gépp ginnaaw bu ñu ziyaaree sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru ba noppi ci lañ ànd ak moom wan ko liggéey bu am solo bi nga xam ne moom lañ def fii ci résidence Xaadim Rasul bi nekkee ci Daarul naan muy suite yi nga xamante nii benn bu ci nekk am na salle bu yaatu boo xam ne équipé nañ ko ànd ak chambre bu ànd ak lépp lu mu war a am loole lépp sëriñ bi ñu wan ko ko mu ànd ak sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Mahmadan ginnaaw bi sëriñ bi visité liggéey bi ba noppi ci la ñëw toog ak njabootuk sëriñ Massamba gi nga xam ne ñoo fa teewoon ñu amal fa waxtaan wu am solo woo xamante ni la ca njëkk mooy kàdduy sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Mahmadan mi nga xam ne moo yor kàdduk njabootuk waa kër sëriñ Massamba gépp ngeen dégloo dégloo Serigne Mountakha Mbacké xalifa général de Serigne Touba ñoo ngi lay nuyu bu baax ji leen nuyu ci turu Serigne Moustapha Massamba mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Massamba te jëwrinam teewal ko fi Serigne Mamor Mbacké mi Serigne Moustapha nee. nee Serigne Moustapha nee na. mi ngi lay sant bu baax. mi ngi lay sant bu baax baax. di la gërëm bu baax a baax. ne di la gërëm bu baax a baax. di gën a feddali ak taalibeem. bu baax a baax di gën a feddali ak taalibeem bu baax a baax. Ah, di saw doxin. nee nag di bége saw doxin. ndax doxin wi lépp lislaam la. na doxin wi lépp lislaam la. doxin wi lépp taalibe gu ñu nang gu saadix la. nee doxin wi lépp taalibe saadix la. nee na loolu kon mi ngi ciy sant yàlla bu baax. nee na loolu kon Serigne Moustapha nee na mi ngi ciy sant yàlla bu baax. xelam dal na bu baax a baax. na it xelam dal na bu baax. xelu njaboot gi dal na bu baax a baax. xelum njaboot gi it dal na bu baax. ndax boo boo toppee ci koo xam ne. nee boo toppee ci koo xam ni. mi ngi tege ci yoon wa mi ngi tege ca yoon wa. di ca teg nit ñi. di ca teg nit ñi. nga ànd ca biir mbooloo moomee. nga ànd ca biir mbooloo moomu. wóor na la ne. nee wóor na la ni. bu àggee da àgg. bu àggee da nga àgg. te yow fa sëriñ Touba tegoon tànkam. ne te yow fu sëriñ Touba tegoon tànkam. soppiwoo ca dara. nee na soppiwoo ca dara. dang koo yokk. da koo yokk. ndax say kilifa ñoo fi jiitu woon. ndax say kilifa kat ñoo fi jiitu woon. ñu nga ànd ak ñu àndin wu rafet. nee na nga ànd ak ñoom it àndin wu rafet. déggal leen lool. nee na déggal leen lool. jàppale leen lool. nee jàppale leen lool. ba sunu borom jëlee leen fi. nee ba sunu borom jëlee leen fi. la ko jiitu. la ko jiitu. sa mag ja. nee sa mag ja. Serigne Moustapha. Serigne Moustapha. moo àndoon ak sëñ Abdoul Ahad. nee moo àndoon ak Cheikh Abdoul Ahad. di loxoom. di loxoom. di tànkam. di tànkam. di bëtam. di bëtam. bi yàlla dogee mu jóge fi. nee bu yàlla dogalee nag moom mu jóge fi. nga taxaw taxawaay boobee. nee na nga taxaw taxawaay boobee. soppiwoo ci dara. nee na soppiwoo dara. bi fi sëñ Saliou nekkee ne bi fi sëriñ Saliou nekkee ak bi fi sëñ Alaaji Baara nekkee ak bi fi sëriñ Alaaji Baara nekkee ak bi fi sëñ Sidi Muxtaar nekkee ak bi fi Cheikh Sidi Muxtaar nekkee doonoo woon lenn lu dul nee na doonoo lenn lu dul doon seen taalibe doon seen taalibe di leen xoole sëriñ Touba di leen xoole sëriñ Touba loolu taalibe yëpp seere nañ loolu taalibe yëpp seere nañ ko nga taxaw ca taxawaay boo xam ne nee nga taxaw ca nag taxawaay boo xam ni benn taxawaay mënu koo kawe nee na benn taxawaay mënu koo kawe jàppale leen jàppale leen dimbale leen dimbali leen sagal leen sagal leen suturaal leen suturaal leen loolu moo saw doxin nee na loolu Mbàkke mooy saw doxiin bi yàlla dogalee nee bi yàlla dogalee nag yan bi ñëw ci yow yan bi ak agsi ci yow te mu wóor nu ne. te mu wóor nu ni. sakku woo ko woon. sakku woo ko woon. yaakaaroo ko woon. yaakaaroo ko woon. waaye sunu borom dogal dogalam. waaye sunu mooy dogal ay dogalam. dogal na lool nee na dogal na loolu ci yow. ngay Serigne Touba. ngay Serigne Touba. te mate ko sëkk. te mate ko sëkk. bi nga toogee. ne bi nga toogee. li nga njëkk a jël ci taxawaay. li nga njëkk a jël ci taxawaay. xamal nanu ne. xamal nanu ni. fii nga ko teg rek foofu fii nga ko teg rek la. ndax mooy mooy mooy mooy jàng. mooy jàng. xam. xam. ak tarbiya wu ak tarbiya wu. foofu nga teg sa sa sa sa mission bii nga nekk. nee na loolu mooy mission bii nga nekk. def fi daara joo xam ne. nee def fi nag daara joo xam ni. nangami te nangami nangami nangami milliard la. nee na nangami milliard la. yu bëree bëri. yu bëree bëree bëri. ñu def ko ci defin woo xam ne. nee ñu def ko ci defin woo xam ni. wu gaaw la. wu gaaw la. wu tege ci yoon la wu tege yoon la. wu ànd ak pasteef ak pasteef la. li nga ciy def def nga ko lépp ba mu mat ne li nga ciy def def nga ko lépp ba mu mat taalibe yi nga xam ne ne taalibe yi nga xam ni ñoo coobarewu ñoo coobarewu liggéey fa lëggéey fa ñoom itam ñoom itam lañ ci man lépp def nañ ko lañ ci def nañ ko Mbay Saar mais mooy seen njiit nee na Mbay Saar male mooy seen njiit noonu la amee taxawaay fii itam nag nee nag la amee taxawaay fii loxo ma ngi ci lépp ne loxo ma ci lépp beneen ba ca des ne beneen nag ba ca des ñi nga xam ne ñi nga xam ni ñoo coobarewu liggéey fa ñee ñoo coobarewu liggéey fa liggéey bi moom it sori na lool nee liggéey ba it sori na lool kenn ku ne kenn ku nekk da ngay jàpp ne da ngay jàpp ni liggéey bi liggéey bi nangami at liggéey bi nanga liggéey bi at la waaye nag fekk waaye fekk Pastef yaa toll noonu Pastef ya moo toll noonu waaye waaye yàggewul waaye yàggewul noonu sëñ bi sa sa sa mébét boobu. ne sa mébét boobu. ak sa naal yooyu. ak sa naal yooyu. yal na ko sunu borom àggale. yal na ko sunu borom àggale. ci darajee xaadimu rasul ci darajee xaadimu rasul. ba nga ubbi leen yoon yëpp ba leen yoon bi yëpp. promotion bi fi njëkk a génne. promotion bi fi njëkk a génne. yal na ñu génne ci sa kanam nee na yal na ñu sa kanam. yàlla mën na ko nee na yàlla mën na ko. ak yeneen i promotion yeneen i promotion. yoon wi nag. nee na yoon wi nag. nii rek la demee. nee na nii rek la demee de. yoonu ndigal rek la de. sëriñ Massamba mii nga xam ne moom nga seet si fii tey. nee sëriñ Massamba mii nga seet si tey fii. moog sëriñ Touba. nee moog sëriñ Touba. noonu rek la ko defoon nee noonu rek la ko defoon. da defoon muy way juram da koo defoon muy way juram. defoon ko muy magam. defoon ko muy magam. def ko muy sëriñam. def ko it muy sëriñam. lépp lu ci cër yooyu. nee na cër yooyu. li muy li muy neex neex. nee li muy neex neex. taalibe gi mu am moo ko gën a neex. nee taalibe gi mu am moo gën a neex. waaye sëriñ bi liggéeyloo ko moom itam waaye sëriñ bi liggéeyloo ko moom itam liggéeyloo na ko ci wàllu taxaw nee na liggéeyloo na ko ci wàllu taxawu muy laxasaayu muy laxasaayu di ànd di ànd ak ñëpp di ànd ak ñëpp di liggéey di liggéey ay kër ay kër yoo xam ne booba kër gii ñëwagul yooyu boo xam ne kër gii ñëwagul ca Ceyeen ca Ceyeen ak ci yeneen dëkk yëpp ci yeneen dëkk yëpp sëriñ Massamba liggéey na fi liggéey bu rëy Massamba liggéey na fi liggéey bu rëy ba ci njaareem ba ci njaareem ndekete booba ndekete booba yaa ngi ñëw yaa ngi ñëw di ko liggéeyloo liggéey boo xam ne liggéey boo xam ni moo moog boo moog yooye ñoo yem képp moog yooye ñoo yem képp ci pas-pas ci pas-pas ci ci ci ci bëgg lu baax ci bëgg lu baax ci bëggug taalibe ci bëggug taalibe noonu la sa sëñ Massamba doon doxee ne noonu la sëriñ Massamba doon doxee mu liggéeyloo waat ko wàll goo xam ne nee nag mu liggéeyloo ko wàll woo xamante ni moom itam wàllu toog la ne loolu wàllu toog la muy muy xasi xas xasida yi muy xasida yi lu bari lu génn ci moom. nee lu bari lu génn ci moom. teg ci tege ci loxoom. tege ci loxoom. mu ne ko ma samba mu ne ko ma sàmba. lu war a génn. lu war a génn. génne ko génne ko. lu warta génn. lu warta génn. bu ko génne bu ko génne. kóolute googu la amoon ci moom nee kóolute googu la Serigne Touba amoon ci Serigne Massamba. bëggutoon nag kenn ku dul Sëñ Touba. ma samba Massamba bëggul woon kenn mbaa lenn ku dul Sëñ Touba. soxlawul kër. nee soxlawul kër. soxlawut woon dëkk. soxlawul woon dëkk. soxlawul dara soxlawul dara. ba Serigne bi. ba Serigne bi. yabal ko moom ak sëriñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou. yabal ko moom ak cheikh Mouhamadou Moustapha ak cheikh Modou Fadal. ne leen dem leen Touba ma fa. ne leen dem leen Touba nekk ma fa. bu ngeen demee. bu ngeen demee. kenn ku ne. kenn ku ne. na fa wut kër. na wut kër. waaye na wuti fu muy liggéeyee. na wuti fu muy liggéeyee. ndax ku bëgg a tedd. ndax ku bëgg a tedd. da ngay nangoo liggéey da ngay nangoo liggéey. ku bëgg a am àllaaxira ju ju ju mucc ayib. ne ku bëgg am nag àllaaxira ju mucc ayib. da ngay nangoo jaamu yàlla da ngay nangoo jaamu yàlla. ñu ñëw ñu ñëw ba ñu jógee bay dem ba ñu jógee bay dem mu ne ko ma dellu sil mu ne ko Massamba yow dellu sil mu del siwaat mu del siwaat mu ne ko lala daloon njaareem nag mu ne ko lala daloon njaareem nag laay bañ mu dal la fii lay bañ it mu dal la fii boo demee boo demee nang ma féete ci wàllum ndeyjoor nang ma féete ci wàllum ndeyjoor mooy këram gii ci ci ci ci ci ci ci mbal mooy këram gii ci mbal loolu gis nañ ko léegi bu baax a baax nañ ko nag léegi bu baax a baax kër ga dugg fa nee kër ga dugg fa rek man mii man mii ko yor ne man mii ko yor mënuma faa dugg ne mënuma faa dugg te taxawuma lu ëpp waxtu te taxawuma lu ëpp waxtu loola moom ne loola moom ñaanuk sëriñ bi dong ne ñaanuk sëriñ bi rek la du leneen du leneen loolu nag ne loolu nag mooy doxiinu sëriñ Massamba mooy doxiinu sëriñ Massamba ci loolu la nekk ne ci loolu la nekk ba jóge fi ba joge fi liggéey loo ko ci jumaa ji liggéey loo na ko ci jumaa ji ñu ñu wuti ay xeer ñu wuti ay xeer mu nekk ca xeer ya ca xeer ya moo moo mook Baay Faal yëpp mook Baay Faal yëpp di liggéey ci liggéey ca liggéey ba moom daal dundam gépp nee na dundam gépp jeexal na ko ci liggéeyal jeexal na ko ci liggéeyal sëriñ Touba ba sunu borom moom nee ba sunu borom moom ko bi mu ko moomee itam ko moomee itam taxawaay boobee taxawaay boobee nag. njabootam gi fi ne. njabootam gi fi ne. soppiwuñ ca dara soppiwuñ ca dara. Serigne Modou May moo fi njëkk nee Serigne Modou May moo fi njëkk. noonu la doxe woon nee na loolu la doxe woon. Serigne Mahmoudan tege ca. nee Serigne Mahmoudan tege ca. moom it doxin woowu la amoon nee la amoon. sëñ Abdoul sëñ Salihu Mbacke tege ca nee Cheikh Salihu Mbacke tege ca. moom it noonu la doxe nee na la doxe sëriñ Abdul Baaxe tege ca nee sëriñ Abdul Baaxe tege ca moom it noonu la na moom it noonu la doon doxe sëriñ Moustapha mii fi na tey ba ci sëriñ Moustapha mi nekk tey nga xam ne moom itam nga xam ne moom itam da ngeen a xaw a niroo doxin da ngeen a xaw niroo doxin ndax doxinam mooy doxinam moo di kuy kilifaam kuy kilifaam rek mu def la kilifa mu def la kilifa ànd ak yow ca loola ànd ak yow ca loola loo nekk mu nekk loo nekk mu nekk ca loo taxaw mu taxaw loo taxaw mu taxaw ca loo soxla mu mu gar ci bakkanam ne loo soxla mu gar ci bakkanam noonu la doon doxe noonu la doon doxe ci xalifa yi jiitu yëpp xalifa yi jiitu yëpp ba yan bi ñëw ci moom ba yan bi nag ñëw ci moom bi mu ñëwee ci moom itam bi mu ñëwee ci moom itam bokk na ko njaboot gi yëpp bokk na ko njaboot gi kenn koo xam ne ne kenn koo xam ni ci jaboot googu nga bokk ci jaboot nga bokk ngay ngay seeni doom ngay seeni doom ku ci nekk ku ci nekk dara ump dara ump ko ci yéen. dara ump ko ci yéen. ci ci nun ah mu def ma may seen may seen jawriñ. nee nag mu def ma nag may seen jawriñ. may seen may may ma yor seen kaddu. nee ma yorit seen waaye ki nga xam ne mooy seen jawriñ. waaye ki nga xamante ni mooy seen jawriñ. mooy sëñ Mamor mii toog mooy sëñ Mamor mii toog. moom itam ne moom itam ku am taxawaay bu rafet ku taxawaay bu rafet la ku gëm Serigne Moustapha la ku gëm Serigne Moustapha la ku ko bëgg la ku ko bëgg la du caageenu ñu bokk way jur du caageenu li ñu bokk way jur waaye bokk gi ñu bokk pas-pas waaye bokk gi ñu bokk pas-pas bokk bëgg-bëgg bokk bëgg-bëgg moo am moo tax mu am taxawaay ne moo tax mu am taxawaay bii kon ne kon doxin wi nii la kër gi doxee nii la tëree liggéey bi tam liggéey bi itam bi nga waxee Cheikh Bass mu ñëw bi sëñ Sidi Mokhtar waxee Cheikh Bass mu ñëw wax nu ko. nee bi Cheikh Sidi Mokhtar waxee Cheikh Bassirou mii mu ñëw wax nu ko. danoo ànd ba ci ñoom. nee danoo àndaat ba ci ñoom. ba ci sëriñ Moustapha. ba ci sëriñ Moustapha. mu yebal na ci sëñ Mamour. nee mu mii. ñu dem toog fa waxtaane fa yëpp. nee ñu dem toog fa waxtaane fa yëpp. waxtaane fa nuñ koy liggéeyee. nee waxtaane fa nag nuñ koy liggéeyee. ak pas-pas buñ ciy am. ak pas-pas buñ ciy am. ak yéene juñ ciy am. ak yéene juñ ciy am. ba ba bañ juboo ci. nee bañ juboo ci. Cheikh Bass doog a dem. nee Cheikh Serigne Bassirou mii door a dem. andil nu plan bi. andil nu plan bi. plan ñoo ko defar. nee bi ñoo ko defar. andil nu ko. andil nu ko. ñu ñu respecté ko nañ ko bindee woon. ko nañ ko woon. dara manqué wu dara manqué wu ci suuf gi. ci suuf gi li ci dem. li ci dem. ak li dem ci kaw gi. ak li dem ci kaw gi. soreewuñu soreewuñu. tableau baa ngi ci biir ci eh, buntu bi tableau baa ngi ci buntu bi ku ko gis ku ko gis da nga xam li ci dem ci feer da nga xam ne li ci dem ci xeer ak li ci def ci feer ak li ci dem ci feer ak li ci ay feer feer yi gën a kawe yi gën a mag feer gën a kawe te gën a mag am na ci am na ci liggéey bi nag. ne liggéey bi nag. noonu lañ ko toppee. ne loolu lañ ko toppe ñu doon ci jawrin. ñu doon ci jawrin. Serigne Fallou doon trésorier bi ko yor. nee Serigne Fallou doon trésorier nañ ñu ñaanal ko. nee bëgg na it ko. ndax ndax ndax lépp lu ñuy dénkaane moom lañ koy dénk. moom lañ koy ci wér gi. ci wér gi. ak maandu gi na ko sëkk nee mate ko sëkk. sët yi yëpp. nee yëpp. biñ defee liggéey boobu na ñoo xam ne bari na ñoo xam ni bii ñu koy ubbi lañ fi doog a dox. fi doog dox. ndax am ndax am kóolute. am kóolute ak confiance. ak confiance ci ñi dénk liggéey bi ci ñi ñu dénk liggéey bi. tey nag ñëpp ñëw nañu. tey nag Mbàkke ñëpp ñëw nañu. waaye nag seen loxo. waaye seen loxo. mësu cee jóg. nee mësu cee jóg de. ndax nee nu doon liggéeyee. ndax doon liggéeyee. at mu ne. at mu ne. danañu laaj uh, kër yi. danañu laaj kër yi. li li jëm ci liggéey bi li liggéey bi. ñu joxe ko ñu joxe ko. ñu liggéey ko ba at ma jeex. ñu liggéey ko ba at ma jeex. ba ci at mu mujj mi ba ci mu mujj am nañ juróom benn fukki million. am nañ juróom benn fukki million. mottalee ko liggéey bi mottalee ko liggéey ca fanweeri million. tegaat ca fanweeri euh, muy muy muy muy muy muy photo yii fi ne. muy muy nag salon kon sëriñ bi. de kon sëriñ bi. nga ñaanal sët yi. nee nga yi. ba ñu teg seen tànk fi ko seeni wayjur tegoon. ba ñu teg seen tànk fi ko seeni wayjur tegoon. te bañ caa soppi dara te bañ caa soppi dara. ki bëgg Serigne Touba ki bëgg Serigne Touba. ak gëm ko ak gëm ko. bëgg Seex Masamba bëgg Seex Masamba ak gëm ko ak gëm ko. ñaanal nu ne ñaanal nu ba suñu xol sax ci loolu sax ci loolu. dara bañ fee jóge benn yoon bañ cee jóge benn yoon. nu ñaanal la. ne ñun la. sa gudd lool sa fan gudd lool. li nga yéene lépp nga def ko nga yéene lépp nga def ko. ba mu mat sëkk ba mu mat sëkk. dara bañ caa manqué dara bañ caa manqué. xam nañu sa Pastef mais xam nañu nag sa Pastef. ak sa yéene ak sa yéene. wóor nañu ne. mais wóor nañu su ko suñu borom dogalee. su ko suñu borom dogalee. kenn ku ne da nga am la nga bëgg. mais nekk ci ñun ñii di nga am loo bëgg. ndax ndax ndax ku ne yéene nga ko la mu am. ndax ku ne yéene nga ko la mu am. taalibe bu ne yéene nga ko mu am lu dul jeex. taalibe bu nekk yéene nga ko mu am lu dul jeex. kon ñaanal leen ko rek kon ñaanal leen ko rek. ba loo song. ba loo song rek ñu mën koo daaneel ñu mën koo daaneel. ñu ngi lay sant bu baax itam ñu ngi lay sant bu baax a baax. Euh, màggal gii ñëw màggal gii yal na ci yàlla defal ndam. la ci yàlla defal ndam. ndam lu rëy. loo xam ne. loo ci jóge xam kan ay sëñ Touba. te wóor na nu ne ginnaaw kàddu yi nga xam ne moo bàyyee bàyyeekoo ci njabootug sëriñ Massamba gi te sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Mahmadan yëkkati ko sëriñ Muntaxa Mbacke Basiiru xalif général des Mourides santaat na leen bu baax gërëm leen ci taxawaay bu am solo bi sant bu baax njabootug sëriñ Masamba waaye it yëkkati fa ay kàdduy seere yu am solo jëmale ko ci jëmm ju tedd ji nga xam ne moo di sëriñ Masamba Mbàkke mi ngi nuyu sëriñ Mamor mu jottali ko nuyoom boobu sëriñ Moustapha ak bokki taalibe yi fi teew yépp ak bokki yi fi teew yépp te ñu àndoon ak moom ñu bokkoon liggéey bi ak bokki taalibe yi kaddu sëñ mu ne daanaka kaddu yi sëñ Cheikh yi. xawee su jéem a jéem a dolli dara. xawee su a jéem dara. ñëpp dégg nañ ko. ñëpp dégg nañ ko. te leer na nañ. te leer na mat na sëkk. mat na dara des ci. nee dégg nañ ko ci nopp yi. dégg nañ ko ci xol yi. nee kon mënuñu cee dolli dara. am nañ am am euh, jotaay bi am nañ ci mbégte mu rëy. xanaa rek kay jataay bii ak bis bii am na ci mbégte mu rëy. ndax yéen a gin yéen a euh, euh, ñu ko njabootu Cheikh Massamba gii njabootu Cheikh Massamba gii ko liggéey. ni mu ci amee mbégte mu rëy. nee na ni mu ci amee mbégte mu rëy. fekk na yéene ju rëy moo ko jiitu. fekk na yéene ju rëy moo ko jiitu. yéene leen jëf ji lool. yéene leen jëf ji lool. nee na xolam sedd ci guy yi. yaakaar dolli ko ci. yaakaaram dolli ko ci. xel gën dal. xelam gën a dal. sëñ Massamba moom. na sëñ Massamba moom. tudd gi rek ma dégg ko ci samay na ñu tudd ko rek mu dégg ko noppam. doy na ma mbégte. na ko mbégte. loolu taxoon na. nee na loolu taxoon na. bii. ma defal ko bisu boppam. ma defaloon ko bisu boppam. lépp di ko dugal ci liggéey Serigne doon ko dugal ci liggéey Serigne Touba. loolu jiitu woon na. nee na loolu jiitu woon na. boobu sama kilifa ngi fi. te nee boobu kilifa ma ngi fi. waaye mënatu ko woon a muñ. a muñ. mënuma a feeñal a feeñal nag digganteem ak Cheikh Massamba. moo tax ma defaloon ko bis boobu ma ko defaloon. loolu moo tax ma defaloon ko bis boobu ma ko defaloon. waxi sëñ seex yi. nee na kon waxi sëñ seex yi. kaddu sëñ seex yi. kaddu sëñ seex yi. jërul dolli dara. jërul dolli dara. xanaa dolli cant ak ngërëm rek. xanaa dolli cant ak ngërëm rek. ak di di di di di di seereel. di seereel Serigne Moustapha. mi jiite kër gi. doom yi ak doom yi ak rakk yim mu ko àndal. bokki ak bokki taalibe yi. leen di seeral ñoo leen sant di leen gërëm. na mi ngi leen di seeral ne mi ngi leen di sant di leen gërëm. di ko seeral rek Serigne Touba mi borom liggéey bi. di leen seeral ne itam. ñun ñëpp. ñoom ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. maa ngi leen di seeral sama sama yeesal gu muy yeesal sama jaayante ak mi ngi leen di seeral yeesal gu muy yeesal jaayanteem ak Serigne Touba. di leen di leen gën a seeral. fas yéene fàttali sama laxasaay gën ko ànd ak yéen. fas gën ko ànd ak sax dàkk ci jaamu yàlla. ak liggéeyal sëriñ bi. nag moom foofu rek nekk. nee na koy seeral yéen ñëpp. jërë ngeen jëf. nee cant daa mënta waaye kon dana ko weesu. nee na xolam sedd guy. ay kàddu yu tuuti loolu sëriñ bi wax loolu sëriñ bi wax. dafa am bis boo xam ne. dafa xëy. ñëw ci sëñ Moustapha. ne ko dama lay siyaare si. delluwaat ci kër ga. delluwaat ko bis boo xam ne. delloo njukkal sëñ Masamba la ko tudde woon ñu yendu fa jàng alxuraan yendu fa jàng xasiida ba ngoon jot ñu def fa teraanga yu rëy nee loolu mooy lii sëriñ bi junj nii nee na kon loolu xam nañ ko ci moom nee na leneen li mu ci dolli mooy daalu Karim dëkku Seex Masamba la dafa doon lu yaatu bi ñu koy sañ wax ko sëriñ bi sëñ Cheikh nee na lu ko yéem la ndax daa ñëw siyaare ko Porokhane mu yebal si ma man mii ci sëñ Cheikh eh, ma yët ko ñaari million ne ko sëñ bi nee na mu def ko liggéey ba ñuy tàmbaleel seex ma sàmba bi ñuy def jumaa ji mu ne jumaa ja ma nga fa arrêté wutoon waaye da dox dox bu yem ndax liggéey bi sëriñ bii. nee na moom it bañ ko yëgalee. noonu la defaat. indi ko jox sëriñ bi. andi ñu def ko ci liggéey ba. ne Daaru Karim googu nag sab dëkk. dëkk Seex Ma Samba. nee na Seex Ma bu mag noonu. dëkk bu mag bu mag noonu. nee na dara waralu ko lu léppam da ko joxoon sëriñ bi. soxlawul kër soxlawul nga xam ne nag soxla nañ dara. ñun ñi xam ne soxla nañ dara. noo noo noo ni ma ko waxee woon keroog rek. Serigne Bassirou nee na Cheikh Massamba na ma ko waxee woon keroog. day day li ci sëriñ bi dafa bari. nee day rakkam. di doomam. di doomam. di ab taalibeem. di ab taalibeem. jël léppam itam jeexal ko ci sëriñ bi. ne jël léppam jeexal ko ci sëriñ bi. sayal boppam léppam ci sëriñ bi. sayal léppam ci sëriñ bi. nee na sayal léppam ci sëriñ bi. mooy lii sëriñ sëriñ Cheikh wax moom la sëriñ Cheikh mi wax. moo tax sëriñ bi. nee moo tax sëriñ bi. xam na liggéey bu toll nii. xam na ne liggéey bu toll nii. ak Pastef bi am ci Cheikh Massamba. ak Pastef bi am ci Cheikh Massamba. bi mu am ci Cheikh Massamba. bi mu am ci Cheikh Massamba. dara doyu ko ci lu may ñëwal boppam. nee na dara doyu ko ci lu dul moom sëriñ bi mu ñëwal boppam. ba gisal boppam lépp. nee ba gisal boppam lépp. santal boppam sëriñ Moustapha. nee na santal boppam sëriñ Moustapha. ak sëriñ Mamor. ak sëriñ Mamor. ak sëriñ Cheikh ak seen rakk yëpp. ak seen i rakk ak seen i doom yëpp. kon loolu. ne kon loolu. li sëriñ bi waxoon yóbbaale na lépp. ne li sëriñ bi wax yóbbaale na lépp. kon ndigal moom des ko sant ñàkk a jëfe rek. nee na daal des ko mënta ñàkk a jëfe. waaye ñu jeexale foofu kaddu gi. waaye ñu jeexale foofu kaddu gi. di nee di ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi lool. ñaanal sëriñ Moustapha itam. nee ñaanal sëriñ Moustapha itam. nee ñu ànd ñu yàgg ànd liggéeyal sëriñ Touba. te daje cee ngërëmu sëriñ Touba. te ginnaaw waxtaan wi le nag yëkkati nañ caabi bâtiment bi ñu doon liggéey jébbal ko sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou boolewaale ci addiye joo xam ne toll na ci 6 millions de francs CFA lépp nekk loo xamante ni mbégte la ci njabootug sëriñ sàmba gi ngir ñu sant leen liggéey bu am solo bi mu mat ñu jébbal sëriñ bi caabi yi boolewaat ci àddee ji